salaamaaleykum ami cher téléspectateur u people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen nuyu ci weeru tedd wi di weeru safar di ñaan yàlla sunu borom lépp lu ñu fi ñaan ci lu baax yàlla na ko sunu borom ful mu doon ay ngëneel tey nag ñoo mbegte dalal koo xamante ni keroog dañ koo dalaloon sunu kër sunu ami yëpp taraw naan ñu kii faaw mu ñëwaat faw mu ñëwaat ngir ay waxam xale dañ ciy jàng ma ngi ni ci jàng muy Mara Chérif tey nag dañ koo seet si bu bokkul ak anam bañ ko seetee woon keroog te dañoo bëgg a dugg ci wàllu ñaan développé ci lu bëri cheikh bi dañ lay bàyyi nga nuyoo ngi lay siiwul fii ci people 221. aoudu billahi min alcheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi tayibin tahirin ajmain alhamdulilahi alladi rahim alhaadi liman yashaau min dawi al inaadi ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحييكم بتحية إسلامية نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi nuyu waa people 221 di nuyu Sénégal àdduna bi yëpp di ñaanal woy dawlu yal na yàlla xare leen aljanna di ñaanal ñi nga xamante ni dañoo nekk ci hôpitaux yal na yàlla saafara seen wér-gi-yaram ci barke alquran képp ko am nattu yàlla na ko yàlla teggi wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah euh, nuyoo bi am na solo tey nag damay dëpp gars yi parce que bee dama ñëw dugg ci actualité gars yi suivre ko de dama koy dëpp fi may njëkkee euh, ñu waxtaan ci wàllu seet ba xam nit ki bala nga koo ñaanal da koy seet wala nit ki day da koy ñaanal ñëw jox ko ay bitéel ak sunguf rek mu dem yoonam. dëgg la salaamaaleykum ñaan yàlla li njëkk balaa muy am. seet mën naa am mais ñaan yàlla am na fu muy tollu jarul seet mm-hmm. waaw ndaxte nit ki bu xasee ba ñëw teewlu ne la ah man de diw ak diw diw mooy sama yitte kon kooku jaralul seet mm-hmm. su fekkee ne koo xamante nii lënt ay jafe-jafe lënt na ko mm-hmm. kooku mën nga koo seetal tabarakallahu te seet dafa am solo ndaxte ñaar moo fi am yastaxfuuna min annaasi wala yastaxfuuna min allah hmm. bu ko defee tabaarakallahu mu ngi noonu seet lu am solo la nag hmm. waaw lu ama am solo la ñëpp ko war def waaw ku ko mën ku ko mën xam nga du ñëpp ko war def ñëpp ñu ngi def lu bari te dañ koo tele hmm. waaw waaye seet moom dafa am solo surtout wàllu tabiat nga xam ko xam rawxaan bi xam saraxu rawxaan bi xam mm-hmm. rawxaan ban la war a àndal pour sëy mm-hmm. oyof ci xam nga mm-hmm. sëy moom benn oyoful comme ni ko alquran tënkee rek wa min ayati an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawadda wa rahma ñaar yooyu koy ëmb gannaaw ñaar yooyu nag tabaarakallahu mu ñëlanteeg wa naxwi dalika ndax hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ma ñëwaat ci wàllu wàllu ñaan yàlla. Mhm. léegi daanaka ku ñaan. Mhm. mën nga ñu andil ay leeral ci wàllu ñaan yàlla. wàllu ñaan yàlla dafa bari ay branche branche bi ci njëkk mooy alquran te moom rek lañ war di ñaanee nag. Mhm. mais alquran dafa bari ay secret sirru yoo xamante ni dañ koy abbal ay xaraf. abal ko ci beneen la ci beneen hmm. palaasit ci beneen bind hmm. bu wuuteeg lu dul alquran hmm. bu ko defee bu fekkee ki ngay ñaanal laabul waroo ko di jox quran mu koy sangoo ndax day gën a diisal yaramam da koy gën a sonal bu fekkee kuy takkoo sobe la lu bari warul di sax sangoo alquran ah, ah, ndax alquran dafa nekk loo xamante nii dafa laab dafa nekk loo xamante ni lu sobewu waru ko jege waroo ko sangoo sax ci makaan bu am sobe waroo ko it sangoo di def awraay neen danga nga war a woddu pour mun koo sangoo mu bañ a laal sa awra ñu bari tële nañ foofu lay jaare mhm. am na yenn xeetu càngat yoo xamante ni boo koy ñaanal nit ki te xamoo rawxaanam daa ñëw rek nga xër jël bite laa tax tëris jox ko te xër moom fayal xirsu laysa bi faaqirin mhm. xër moom tabarakallahu ci tooxi doona rek la lay dugal mhm. nit nag bu ñëwee di ñaan lu yàlla nga xam ni kii tabaatam nangam la lii mooy saraxam saafara ay mbiram du jafe ay càngatu 15 jours rek boo koy sangoo da ngay taxaw ci kaw ak ci baa ngay toog 6 heures du matin nga koy sangoo yu coono coonoy ñaan la bi ci gën a gaaw kurus la kurus waaw te ñaan ni mu bëree ay ixtilaaf mhm. am na nag jalan ñun moom jàng nañ yooyu xeet mhm. waaw bu dee ku salte ki la hmm. ku koo xamante ni amul taharatul xabas amul xabas hmm. bu ñëwee dañ koy xoolal buñ ko hmm. xoolalee ci jalang lañ koy ñaanale lépp lu nekk sunguf ak wàllu fas ak takk loolu njabar mais lépp loo xamante ni wàllu quraan la ak kurus du njabar loolu loolu lu wér la te nekk ci nag du tee ñu def baynal farq mhm. takkale ko mhm. li topp fële ñu toppale ko fële mhm. li topp fii it ñu toppale ko fii nga defee loolu la tabaarakallah fi ma ñëw ci wàllu sarax sarax ma dégg ñu ni sarax dina fanq ba fànq bés bi nga war a dee ci yenn ñi sarax dafa bari ay branche am na juróom-ñeent d'accord andil ma ci ay leeral sarax dafa am boo xamante nii mooy bi yàlla doon wax qawlun maarufun wa magfiratun xayrun min sadaqa wax ju neex ji sarax gën mooy sarax bi nga xamante ni yow danga dem ci njabarkat bi waxuma la sëriñ bi de njabarkat bi mu digal la ko ne danga koy wëndeel sa bopp sarax ko ku cëram wàññeeku maanaam mu digal la nga sarax ko kooku waaw wala nga yëngal ko sa bopp wala fanaanoo ko nangami fan doog di ko saraxe sa bopp day metti nga dem mu diggal la sarax ne la wëndeel ko sa bopp bi nga jox ko boroom musóor wëndeel ko sa bopp bi nga jox ko koo xamante ni dafa nekk ci mbedd di dem wala teg ko ci sele yoon utal ginaar gu xonq gu ñuul wa wi dalik mm-hmm. yooyu du saraxu sëriñ mm-hmm. saraxu sëriñ xaqiqa mooy wallu suuna wàllu dugub lépp loo xamante ni. Mm-hmm. miskin yi dañ koy mun a jariñoo moo tax alquran doon wax naan innama sadaqatu lil fuqaraai wal masakin mm-hmm. wala amilina alayha wal muallifatu alqulub mm-hmm. wa fi riqabi wal gaarimina wa fi sabilillahi wa bni sabili mm-hmm. wa naxwi dalika ba ila axiri loolu nag moo tax sarax dafa xaw a sew te sarax dëgg doo ko génne te gisoo sa résultat li waral xaqiqa nga saraxe boo saraxee gisoo li nga doon saraxe rek sarax ba sarax mu nga fa woon fa mu ne mhm. mais yow mi ko saraxee mhm. la nga ci jublu du fa mhm. ndax in qasada ladata awajadaha wa in lam yajidha wa lam yaxshiha tabarakallah eh, ndeysaan waxtaan bi waxtaan bi dafa neex eh, eh, question bi nag ay ay ay nit yoo xamante ni du seen tayef waaye yàlla ci dogalam moo dogal caabi féete woon leen ginnaaw ñu def fa ay at ba seeni mbokk fàtte woon leen bi ñu jëflante ak yow yàlla sunu borom may leen liberté secret génnee nit ci kaso wax nga lu compliqué. Hmm. lu te ñu bari. Hmm. xanaa xamoo képp koo xamante ni dafa nekk ci xat-xat. Hmm. te xamul li mu ne fu mu jëm. ak kañ lay jeex. xamul fi mu jëm kañ la mbir mi di jeex. kooku kumpa gi muy dundee rek dafa doy kumpa. léegi nag nan la fa mën a nekkee nga génnee ko fa. loolu dafa wér am na ay tegtal. mais ñaan ci moo gën a wér tee ci lii munu waaw tee ci lii kurus ak dafa am sarax bu lay génnee kaso gannaaw boo fa génnee mun nga faa mucc bañ faa delluwaat waaw am na ñooy ñaanal ñu nekk ci kaso génn ba pare du yàgg ñu delluwaat ca mhm. parce que dañ leen a reyloo bëy bëy saay boo ko rendee ci wàllu kaso da lay dugal mhm. saay boo ko lekkee balaa ngaa dugg daa dugg mais boo xasee boo dugg doo fa yàgg boo génnee xaraamal nga ko. waaw mais nekk kaso moom ñu génnee la fa sans atte la nag da ngay jékki-jékki ñu ne la génne nañ la toppeetuñ la dara. alhamdulilah te fa lay yem nag. allahu akbar tabaarakallah voilà mu ngi noonu waxtaan bi neex na trop. Mhm. Euh, mu nekk Mara Chérif. numéro téléphone bi di 77 947 11 06 77 484 33 36 fi may ñëw. ci actualité lay xaw a dugg tuuti. Mm-hmm. ñu gis ni yenn citoyens yu bari fii ci senegal dañuy taxaw. di mm-hmm. saaga président. Mm-hmm. di saaga kilifa diine yi. di saaga ñëpp. en tant que yow porteur de voix en tant que yow sa xam-xam nga koy joxe. Euh, mën nga ñu indil ci loolu ay leeral. dëgg la ma ne ko nit day am xorma. surtout ci njiiti réew. man nag yàlla dafa dogal sama baay daf maa yar. ma koy nuyu du passage di ko ñaanal yàlla mm-hmm. daf ma jaarale fi ñuy jaarale xale mm-hmm. pour bu ëllëgee mu mën a defaru mm-hmm. te kenn du ko yàq waaw ma koy ñaanal yàlla wér ak gudd fan Mouhamadul Hafiz Aydara ma koy ñaanal mu ngi jurbel di ñaanal waa jurbel yépp ñu ñaanal ma yàlla gis nga ñàkk xorma dina xañ nit teraanga jum ko waroon may surtout ci président de la république Macky Sall ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ak soxnaam. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla man mënuma xëy te sànniwuma ko duwaaw ndax li mu yenu dafa diis. Mm-hmm. mu ngi muñ bay muñ lu mu mënul. Mm-hmm. waaw donte kenn matul. ku nekk dana juum. ndax yàlla rek moo dul juum. al insaanu an nisyaanu doomu aadama dafay fàttu. te day fàtte. mënul contrôler fépp. Hmm. waaye it mënul tolloole fépp hmm. loolu yàlla doo nga ko mën hmm. li mu mën nag maa ngi gis mu ngi koy def yàlla na ko ci yàlla gën dooleel te yokk ko xolu muñ ndax ñiit da ngay muñ ak lu mu xat-xat muñal ndax xulillahumma malikal mulki daraja ji ko yàlla jox joxu ko sëriñ joxu ko benn waliyu président bu jubalee génn àddina direct aljanna amul lu koy xatal ndax yàllaa ko dénk moomeel al mulku nguur la maaliku nag yàlla la mhm. kenn du ko ko dono mhm. nguur yàllaa ko ko jox ñu koy mhm. ñaanal yàlla wattu ko aar ko ñaanal ko njabootam ñaanal ko ñëpp ñu séq ak moom di liggéey di gannaaw gi nag ki nga xamante ni day joŋante ak moom ñëpp ràññee ko dégg naa dafay ñëw kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax mais ñun président la ñuy ñaanal parce que coono gi mu yenu kenn xamul fu mu koy yebbe te lu waay yàq dañ naan moo ko yàq lu waaye mhm. defar duñ ko wax mhm. dañ koy ŋàññ mhm. moo tax ku yayoo ñaanal la it daf ko soxla Sonko yàlla yàllaa ko yëkkati yàlla nag tux fi du aali wa tuxli salafa ku yàlla yëkkati kenn mënu koo suufeel comme yàllaa ko yëkkati nañ ko ñaanal yàlla te ñi ko topp ñu am xorma ci ki fi ne te jugee gu fi Hmm. ndax gis nga salteel nit du tax mu salte te saltewul hmm. setal nit du tax mu set te setul hmm. te Macky yàlla daf koo setal te ku am wërsëg la ku yàlla dimbali la ku am gannaaw lay teg ci foweewul boppam te ku am ndimbalu jur la ku teel a taxaw ay wayjuram la moo tax ku ko bëgg suufeel boo sàgganul doo da koy wuute yal yàlla taxawu ko allahumma amin taxawu réew mi yëpp allahumma amin damay tëbaat damay tëbaat ñëw tuuti dafa am benn daam bu may message léegi ni ma waxal ma Mara. ñun dañoo am jafe-jafe yi am doom. message la boo xam ne dañu ko envoyé léegi may naa la ko jollale. waaw lu am ñàkk am doom. Mhm. ci tabiat dina ko waral. Mhm. lu mel ni ki safara ak ndox di sëy. Mhm. day waral ñàkk ëmb. day waral it ñàkk bu dee ci góor ki. bu dee góor ki mooy safara. foofu moom teraanga dootu ko am bu amoon sax day wàññeeku. Mm. bu nekkee jigéen gi mooy safara mm-hmm. bu doon liggéey liggéeyam day yàqu day faf toog ci kër gi mm-hmm. bu dee ku góor kee nekk ndox moom dana am sansu am ak moom doom mm-hmm. waaye sëy bi ci bëbb rek lay lay dëkk ndax ku góor ki du am xolu muñal ku jigéen ki du am xolu muñal ku góor ki am na ñoo xam te ni du ñu dend ak seen jëkkër mukk waaw ndax seen rawxaan yi du benn du ñu mën a muñalante hmm. soo ko jegee rek da ngay xat mais boo ko soree da ngay bëgg hmm. bu la soree nekk hmm. fu sore di ngay bànneexu ci kàddoom mais bu la jegee rek da koy rëccu sa xol dootu ko attan ñi waral avortement yu bari mooy nga gis koo xamante ni ndox la di sëy ak ngelaw du toog du gaaw a toog foofu ëmb faaw nga jeng ko faaw nga ñaan lu yàlla faaw nga dëgërlu waaw am na ñoo xamante ni dañuy neef seen tabiaat yi dañuy ànd lu mel ni ki suuf ak ndox mm-hmm. mën nañoo am doom yu tegaloo yoo xamante ni sax at yi duñu rawantee ñaar ak ñett mm-hmm. loolu tabiaat daal dafa am solo ci settantal mm-hmm. te rawxaan dafa am solo waaw ndeysaan neex na torop neex na torop daanaka ñu ngi may signalé ni liñ ma mayoon ci waxtu léegi mu jeex fi may daanalee muy imaam ndaw yàlla na ko yàlla yërëm te ko te xaare ko àjjana muy sa nawle demu imam Ndaw ban jàngat nga ci am donte bëri na ay coow fii ci suñu réew. jàngat yi comme di wuute nag ak nit ñi. Mm-hmm. waaw ndaxte yàlla ko bind yàlla ko jël. ñu koy ñaanal yàlla gannaawam woyof. ñu koy ñaanal yàlla defal ko leer fa mu ne. Mm-hmm. yàlla ko alquran niital. fépp foo nekk turuq ci kanamam yàlla ko ko yàlla aaral. nekk na wàlli yu boo xamante ni kenn mënu ko xam jamono bi ci kanam tuuti lépp loo xamante ni daan na ko joxe ci kàddu dana feeñ waaw dadi li bëggoon mu tabaxu du tabaxoo ci kanamam ci gannaawam rek te nag ñi koy wuutu yàlla nañ ko dëgëral ndam ko doon njorte ñaanam dana nangu de te bana fi loo xamante nii du ma ne ku ko noonoo mbaa nga yàqal ko ci dundam daa ko gis mais daa ci loru tooñ dafa am dafa waxdar min al mazlumi chahman waamal bi ann la yuxjabu hmm. ñaana ku tooñ kenn mënu koo téye hmm. waaw ñaana ku tooñ hmm. kenn mënu koo du sëriñ du dara loo am am maqaama ak daraja mënu koo ñaana ku tooñ Mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla na yàlla oyofal gannaawoon. allahumma kenn rayu ko yàllaa ko jël. Mm-hmm. kenn toroxalu ko yàllaa ko teg nattu teggil ko ko. Mm-hmm. waaw parce que ku yàlla dul teg nattu doo jullit. jullit xàqan day am nattu. day feebar. day wér. day am day ñàkk. waaw. day am lu mu bëgg yàlla xañ ko ko. day am lu mu mébatul yàlla defal ko ko. li ko yàlla defal nag xaqan ay jullit lañ nangu nañ ko mhm. di ñaan yàlla rafetal gannaawam te wax ju ñaaw ji nañ ko bàyyi mhm. yonent bi nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri mhm. fal yaqulu xayran aw liyasmut bu ko defee tënk nañ kàddu waxtu wi jàmp na di baalu xaq ñëpp di baal ñëpp xaq di ñaanal ñëpp jàmm ko defe tabaarakallahu mu ngi noonu daal eh. taxiyatan min indillahi mubarakatan tayiba naqulu lakum asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh